salaamaaleykum tey dañ leen indiloon benn tuto benn vidéo boo xam ne dañ leen war nan la ñuy defaree ay calque daal koy attribuer ci sunu dessin hmm, lu njëkk nii nii lañuy lañuy la ñuy dessiné dessin bii la ñuy dessiné comme nu nekkee nii daal di attribuer calque yi léegi saa yoo ubbee dessin bi lii nga ci fekk boo ubbee nouveau dessin dessin bu bees day def nii calque yi boo xoolee fii calque zéro rek moo ci nekk léegi calque zéro boobu boo bëggee créer yeneen calque da ngay ñëw fii propriété de calques boo duggee ci propriété de calques mën nga bës alt ak n wala nga bës mu def nouveau calque léegi calque yi xam nañ ne bu ñuy dessin bu ñuy def comme dessin bâtiment dinañ am mur yoo xam ne sont des murs non coupés ñu defaat beneen xam nañ dinañ am mur coupé ñu defaat beneen dinañ am fenêtre defaat beneen porte defaat beneen fii calque bu la neex mën ngaa def écriture mën nga def cotation kon foofu lañuy ñuy ci calque yi léegi boo defaree say calque ba noppi mën ngaa ñëw fii nag daal di leen soppi seeni paramètres yi ñëw comme mur non coupé moom xam nañ ne mur euh, ay très lay nekk kon mën nañ ko bàyyi par de défaut mur coupé moom euh, mën nañ ko changé mu nekk très fort mun nañ jël zéro quarante fenêtre yooyu yëpp fenêtre porte écriture yëpp ak cotation dafay nekk ay très fin kon léegi seeni wirgo mi seeni couleur rek lañuy changer jël fenêtre mën nañ jël mu nekk orange nii porte mën jël rouge écriture mën nañ ko def mu nekk blanc mën nañ def aussi itam mu nekk euh, bleu cotation mën nañ mu nekk violet nii daal la def nga xam ne saa ñu soxlaa benn calque bu bees rek dañuy dañuy yokk dañuy ñëw fii def nouveau calque daal di bind calque am changer ay paramètres am maanaam trait continu fii nii type de ligne bi euh, continue bi nga gis mooy trait continu am na yeneen nag comme comme tey écriture bi wala mur coupé mën nañ ñëw fii def chargé am na yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen yeneen xeetu comme boo biggee traits interrompus mën ngaa ñëw jël fii traits interompi wala ay traits mixtes fins yooyu yëpp daal mën nañ koo jël fii ok mais yooyu saa ñu soxlaa la ñëw rek def chargé ok mu affiché fii nga nga daal di bës daal di mën a wéy kon boo noppee da ngay tëj ñu tàmbali suñu dessin dessin bi lañ bëgg a dessiner dessin bi boo xoolee euh, rectangle bi six mètres dix huit la sur trois mètres cinquante ñu ñëw fii ñu def benn rectangle boo xam ne day nekk six mètres dix huit sur trois mètres cinquante ñu def ko nii. moo nekk nii léegi mur yi dañoo jël mur ay brique de quinze yokk ci enduit bi euh, un cinquante un cinquante muy trois muy dix huit kon ay mur de dix huit la ñuy def ñu def décalé décalé dix huit centimètres mur yi léegi bu ñu defee nii ba noppi comme lii benn objet la dañuy sélectionner lii yëpp daal di def éclaté bu ko defee bu nekk daal di euh, indépendant nekk ci côté léegi nag bu ñu defee loolu ba noppi dañuy ñëw fii ñu génnee sunu toilette deux mètres la sur un mètre cinquante ñu daal di ñëw nii génnee toilette bi deux mètres un mètre cinquante buñ ko defee ba noppi génnee miiram nii ak nii waaw léegi ñu daal di ajuster lii ajuster lii ajuster lii lii ñu ko lii ñu prolongé ko benn astuce bu ndaw tamit boo boo euh, ajuster ak prolongé dafa dafa nekk euh, euh, commande boo xam ne dañuy demalante daal maanaam comme comme comme tubaab ni muy waxee naan antagoniste daanaka noonu la demee boobu see shift rek day day transposé wu dem ci ajuste ci prolongé boo bàyyee mu nekkaat ajusté boo ne boo defoon euh, prolongé tamit noonu lay mel itam ok léegi ñu daldi génnee sunu suñuy fenêtre ak porte yi porto fii la nekk fenêtre nii ci digg bi porte fenêtre léegi ñu daal di ni génnee fii seen porte carré génnee porte boo xam quatre-vingts la génne digg bi mais ñëwul dañu ñëw fii ñu activer milieu après ñu daal di décaler décaler 0,60 muy fenêtre 1 fii tamit ñu def noonu porte soixante-dix fii tamit ñu def noonu décalé sur le trois pour génne zéro soixante imposte bi daa def nii def nii ñu daal di génne nii suñu def nañ fenêtre ba noppi ñu génnee fii impost bi xam naa bii tamit duñ ci yàgg noonu dañuy def nii rek benn astuce bu ndaw dañuy wane ñëw fii léegi ci bunt bi def porte nii cercle def nii daal di ajusté lii léegi nag am nañ am nañ euh, porte kii bi moo des porte euh, porte euh, toilette bi moo des ku ko génnee def même bu ñu defee lii ba noppi nag lan moo ñuy des muy dañuy daal di attribuer calque yi calque bu nekk ak lu muy yellool ñu jox ko ko nu ñuy def mooy tey lii mur coupé la dañuy njëkk ñëw fii ñu ne ko mur coupé mais wante xam nga calque yi jëloon nañ ne mur coupé très fort lay nekk wante fii feeñul def nañ ko mur coupé wante feeñul lu tax loolu ndax épaisseur des lignes lañ coché wul épaisseur di ligne boo ko coché rek mu daal di ñëw da koy activer mu daal di ñëw léegi ñëw def copier les propriétés pour lépp li nga xam ne mur copier la mu daldi jël propriété wu mur copier nii la léegi fii nii dañ koy ajuster moom très fin la daanaka mën nañ ne sëy la rek wante mën nañ ko attribuer ci mur noo coupé hmm? ñu ajuster fii bu ñu ajuster fii daal jël li def fenêtre copier copier les propriétés def ni def ni bi tamit noonu bi ñu daldi jël porte copier les propriétés def ni def ni bii noonu nii daal la defee kii léegi léegi fii foog ñuy ñëw fii format style de ñu wàññi fii hauteur bi da koy zéro dix yooyu def fii chambre nekk fii toilette noonu lay nekk it ci noonu lay nekk nekkee ñëw fi format style de code standard wala ISO 25 bi muñ ko jëlee tamit dañuy modifier yenn yi wala xaar ñëw fii directement euh, annoté ok te dañuy ñëw de code ñu ñëw modifier ñu wàññi ligne yi étendre zéro dix décalage de l'origine zéro trois fii symbole à flèche ñu def marque architecturale zéro dix-huit auteur du texte zéro huit comme buñ tànn bale texte mu defe étendre décalage de l'origine zéro zéro ah. mu jege affaire bi waaw léegi nag defar nañ lii ba noppi fii ñu mën nañ def conserver euh, pour mu nekk ci bu fekkee ne dañu am loo xam ne dafa tuuti day nekk ci biiram ñu daal def ok daal di ñëw nii daal ñu def cotation continue jël bi bi bi bii cotation intégral nii six mètres dix-huit yaa nekk nii def nii nii nii moom daal lépp nii lañ koy defee rek ba mu àgg nii cotation continue boo paree nga daal di sélectionné lépp li nga xam ne cotation la euh, ñëw fii début def cotation mu mat daanaka ñaar yi ñoo yam écriture bay yooyu moo xaw a am tuuti différence rek mais daal lii lañ leen indi loon tey ci cotation yi beneen yoon ñu indi leen réglage yu cotation ak tamit nan la ñuy jógee AutoCAD dem DDC Euh, noonu lañ koy defee ba ñu am ci lu dëgërtaar jërë ngeen jëf